teg ci muy troisième ponk bi muy ñaari mandat yu cinq ans président la république mënut ko am léegi itam di ngeen poser question lan moo tax mandat bii nekk en cours moom bokku ci waaw loolu ñun bind nañ sax ci journaux yi di ngeen ko mën a xool pour ñu ko bëgg seet ñi ma intéressé am na ci journaux yi duma tudd journaux yi parce que yeneen journalistes ñoo fi nekk li ci nekk mooy ñaari wax moo ci am mooy est-ce que président am na droit wàññi mandat bi nga xam ne si moom lañ ko dénkan y quatre ans loolu cour conseil constitutionnel nee na mënut a nekk lan moo tax mënul nekk c'est très simple ba d'abord dafa def serment ban koy fal teg ko muy waat dafa waat waat bi mooy man kat Sénégal li may jëkk a def mooy respecté li nga xam ne si mooy constitution bi léegi nag bu ko mën a dindi. mooy premier élément bi mu war a wax deuxième élément bi mu wax mooy article cinquante bi mu jël muy jaar par référendum conseil constitutionnel avis ba mu joxe ñuy wax avis la du avis décision ñun jàpp nañ ni décision la joxe parce que loolu di ko indi mooy constitution 2001 bi aman fii bi euh, Ablaye Wade defoon moo ci def erreur boo xam ni conseil constitutionnel mënut a wax lenn lu dul décision. même bu nu xoolee France bu ñuy wax tuddee ko avis avis ba day obligatoire pour l'exécutif kon kay foo ko mën a jëlee côté boo ko mën a jëlee rek lay jógee foofu moom dafa war a tënk borom réew mi loolu nag dinañ ko wax population yi bis bu ñuy def campagne wan leen du wax waxeet daa mënul jéem na mënul parce que moom daf sàtt réew mi mu tëdd ci kawam comme ni mu tëdd suñu kaw te nag xam waxante dëgg bu fekkaan may nan ko mu mën a dem di yëkkateeg di wàññi mais ñun fu nu jëm bu defee ñaaree tam kon bu ko neexee xanaa laajaat ba encore yeneen ñaar baa mu yokk mandat bi ni fukki at la luñ ci man loolu nag moo indi débat bi nga xam ne dégg ñu koy coowam ndakaaru loolu nag coowam ndakaaru rek la coowam ndakaaru mooy ku nekk ci rajo bi ngay dem waree xam-xam te yàlla xam na ñi bari xam-xam ci dëkk bi bari nañu APR ñi fee bari xam-xam bari nañu ak ñun ñu àndal ñëpp ñi fa bari xam-xam loolu daal du sunu débat débat bi mooy dinañ dem référendum bu neexee yàlla dinañ woteel Macky Sall def ko 80 pour cent ni koy defee nag jafewul dinañ dugg ci néeg dinañ dugg ci kër dinañ dugg ci ronal bu ko jaree parce que nag ñun Kajoor lan gëm Kajoor lañu xamee Kajoor lañu milité ñëpp xam ne ñu ngi fi guddi suba ngoon xew am ñi ngi fi bu xewul am ñi ngi fi. li nu man ci soxla yi ñu ngi koy dox ñu ngi séqal ñoom jàmm Macky Sall warul am lenn lu muy tiit ci Kajoor ak li ko wër moom kay feneen la ñuy wax mais fii moom doo fi gis kenn koo xam ne si dina fi am 2 pour cent te loolu mën naa nekk te ñu ngi ciy liggéey ñëpp a ngi ciy taxaw kooku mooy peut-être précision bi mu gën joxe rek ci réforme bi deuxième élément bi am solo léegi euh, ay miiru wax na ko léegi. ñun amuñu kenn ku ñu yaakaar ci mbirum politique kenn lanu yaakaar mooy Macky Sall te nag du nuy yaafus nag yaakaaruñu ko rek parce que dañ ko yaakaar nii dañ ko yaakaar parce que dafa teg loo xam ne dañ koo gis muy doxal ñu gis muy jubal ñuy gis win ko nag mu jox na loo xam ne dafay plan boo xam ne da ko teg lu musul am Sénégal ñëpp di ci jaar waaye nañ ko joxaat doole pour mu àggale loolu nga xam moom la commencé loolu la ñu jërëjëf